Bouki Ndangaan ak Géant bu Bargny maa lay daa arbitre bi sifflé waat ñu ngi ci compétition bi ci wàllu poule A bi ndaysaan poule ngi noonu Bouki ak Géant bu Bargny Bouki Ndangaan Géant bu Bargny ndaysaan léegi moo moo daan moo daan Libidor moom Géant bu Bargny arbitre bi ñu wax ak bukki ndànkaan Serigne Ndiaye moo ko daan war defaat deuxième combat am ci compétition bi Géant bu Bargny war a defaat deuxième combat am moom it aussi ci compétition bi Serigne Ndiaye 2 am na six points ndaysaan bukki ndànkaan zéro point Toubacouta am na moom it 3 point ci poule B bi la bokk waaye nañ dem ci diggante Géant bu Bargny ak Bukki Ndangaan ndeysaan ci wàllu poule A bi 3 défaites la am Bukki Ndangaan dafa daanu Libidor dafa daanu carrière bu Bawol dafa daanu loolu mooy 3 défaites yi mbëri yi mbëri am di Ndiaye aussi dafa daanu kon Serigne Ndiaye 2 moo am 2 victoire moom Serigne Ndiaye ndaysaan Géant bu bari ñu am benn victoire ndaysaan bi mooy deuxième combat Géant bu bari ñi ndaysaan Bouki Ndangaan arbitre bi sifflé waat na Géant bu bari bukki ndangaan bukki ndangaan moo la woon ginnaaw Géant nga jàkkaar lool